rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sante yàlla di lu ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur bu baax di gërëm waa parti bi nga xamante ne ñoom ngeen ñu fekkal fii di wu ñëpp li nga xamante ne moom la ñu bokk nouvelle bi bi ñu ko déggee ñun nekkul loo xam ne sax gëm nañu ko parce que nit ñi am na ñu may woo man leen def leen ndànk parce jamono jii da ngay dégg ay dëj te fekk amul parce que maanaam tey du lu neex a gëm kuwaa mais dañ koy santaate suñu borom rek di xam ne yàlla lépp lu mu def dafa gën am daan ku nekk boo xoolee ni mel ak yow rek yaakaar naa ni dangay jàpp ni yaa gën a ñàkk ñëpp nit ku woyof la baax bëri jàmm maanaam tey nit ñee ko gënal sax boppam ndax kuy wax ak moom da yaakaar ni yow la gën a bëgg waaw dañ koy ñaanal rek fi nga xamante ni foofu la jëm yàlla na ko gënal fii mu jógee yàlla suñu borom àtt ko ci yërmandeem waaw bette na trop metti na aussi tamit moo tax dañuy santaat rek di ko jaalewaat famille bu baax baax baax ndax ñoom ñoo ñoom ñoo gën a ñàkk ndax deret dafa fort mais sant yàlla daal sant yàlla daal loolu moo fi nekk alhamdulilah euh, ñu waaw waaw moom gaañoowul fii mii gaañoo États-Unis xam nga mais nag santaat yàlla rek affaire yi moom doy na waaral loolu ak soññ la ci ñun ñëpp ci xam ne àdduna lu dara dafa jeex ba pare daal soññ la ci ñun ñëpp ñu rafetal suñu diggante yi waaw ndax boo xoolee at yi ñu génn ak at bii ñu nekk ay jeunesse bi ni muy demee nii doy trop ci ñoo xamante ne ñu amoon ci ñoom yaakaar xoolal kuñ gën a am ci yow yaakaar kooku nga gis mu noppalu surtout parcelle jamono ji Moussa Balla gay yàggul dara Moussa Dioum yàggul dara tey Ramdan tey jamono ji ci ginnaaw Papa Yadda Jules Balde Junior maanaam suñu benn grand école maanaam tey soññ la soññ la ci ñu rafetalaat diggante yi yéen ñëpp jàmm xam ne àdduna bi dafa jeex kenn xamul kañ la kenn xamul fan la Ramadaan bi muy dem xamuñu woon ne du dellu kenn xamul kañ la kenn xamul fan la yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw metti na trop biñ ko yéegee dañ duñ def dara lu xëy sol suñu dàll ndax moom jëndoonu ngor jëndoonu teraanga rafetal suñu diggante ak moom moo tax danoo xëy suba teel tuba si këram ñëw masawu ay mbokkam masawu ay dëkkandoom ñu mu sekk ak mu sekkal jàmm ñëpp ñëw masawu leen man nag sama doomu ndoy uus bébé garga ñoom ñaar benn lañ woon ñoom ñaar amuñu woon xàjjaloo uus garga mi mu xëyee rek moom da ngay gis uus ci ginnaawam. illaahi moo lay wan ni moom xàmmeewul xale xàmmeewul mag Ramadaan ñëpp lu bëgg waaw yàlla na ko yàlla fay xolam waaw yàlla na jëfam yi fekk ko fi mu nekk ndax rafetal na ay jëfam. waaw sant am nañ xel mu dal ci moom yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, du ma la du ma lu yàgg parce que naxar ak tiis moo ki nga xamante ne moom mooy Ramdane tey nii waa parcelle am nañ bëri bett torop torop torop ñu ñëw fii ñu fekk la yow ko la xam diggante ak jàmm kese mooy ku wax dafa mbër boo ko gisee day ree parcelle muy Pikine muy feneen ak feneen dafa mbër nga xam ne yàlla rek tax wax tey jii nii ci waaw mooy li mu la wax rek man li ñuy gis si man man moom laay gis si moom Ram Ndam man maa ngi avant muy dem suñ njëkkee gisante suñu bëñee njëkk a feeñ nitu jàmm moo tax ma ne damay soññ sama bopp di soññ samay morom maanaam lii dafa war a tax ñu gën a ubbiwaat xol yi si yéenante jàmm moom tey ni mu mel ak man ni mu bëree jàmm moo tax bi ma xëyee xalaatuma lu dul sangu ba set soo samay jubal si këram ndax. dafa nekkoon kenn si ñun ñëpp nitu jàmm la barki Seydina Mohamed kenn du mun la wax Ramdaan lañ fekk fii mu mer wala mu nii ñun mbër yëpp jàmm la sekk ak ñun man ni ma nit ñi di gisee di gis kaf fooree noonu la ma bëggee mu ne ma su ma amee stress yow laay waxal yow dafa mbër nii bëri jàmm ndeysaan moo tax ma ne la soññ la ci mbër yëpp nañ rafetal suñu diggante yi sekk jàmm ubbi xol yi ndax Ramdaan noonu la meloon moo tax tey dafa bett ñëpp. demam gi dafa metti ñëpp bett ñëpp waaye ñu santaatee ko yàlla amaan na lii moo gën ci moom yàlla na dee di noflaayam waaw yàlla na dee di noflaayam ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. kañ ngeen mujjee gisante ak yan kàddu ngeen mujjee waxante ngeen ñaar. waaw moom whatsapp lañ doon déggante ndax bi mu demee Amérique xaw na duré ak léegi maa ngi fàttaliku am na benn làmb bu amoon campénal ñun ñoo fa àndoon man moom Clémenceau Moussa Lagrose xam nga Eumeu Sène fa la ñu fekk bis boobu. Siteu fa la ñu fekk benn làmb bu amoon biir camp ñu invité ñu woon foofu ñu ngi kaftoo bi ñu génnee xoolal ndeysaan def ay synap si buntu foofu mu lay wan ne moom nitu jàmm la ndax bu rëyoon wala mu yëg boppam amaan na yenn yi sax du ko def mais ñun booy yi bu nekkee ak ñun da naan ñun ñooy ay moroomam donte gone la mooy li mu la rek man tey dinaa copier lu bëri ci moom dina tax àdduna ma gën koo maanaam woyefal xam ni du dara Ramdaan tey war na woon ñëpp ni àdduna du dara billaahi nit ku oyof bari jàmm mel ni mu mel demee ci sa buntu àdduna fi ñëpp amee ci yow yaakaar moo tax ku si nekk soñu la ci yow waaw yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla atte ci yërmandeem yàlla na dee di noflaayam ci bar Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw di ko di ko di ko jaale ñëpp rek kàddu gu mujj gi maa ngi koy jaale famille am di ko jaale ay dëkkandoom di ko jaale ña mu nekkaloon Amérique di ko jaale waa parcelle 1 ba 26 ak waa waay ndax fi mu dëkkee jege na waay jege na parcelle ci biir parcelle la waaye jege na waay di ko jaare waa ICM waa ECHO di ko jaale képp ndax Ramadaan daanu ñëpp la woon di ko jaale Ouz Garga mi nga xam ne ñoom ñaar benn lañu woon di ko jaale euh, guy gi 95 mi nga xam dafa jógee Malika ba fii amaana tey bu ko raamoon woon lu rafet du def loolu du jógee dëkk ak dëkk ñëw fii waaw di ko jaale ñëpp waaw metti na mais sant yàlla yàlla na yàlla def jàmm incha allah. ziar Ouz. ñu lay bi. Ouz yow ku la gis chaque jour gis Ramdan ci wetam tey bi nii dal ci Ramdan nga xamante ne mooy génn àdduna ñu nga njëkkee yëg loolu noonu lan la damay wax onze bilaay mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bi ñu sant yàlla jullit ci bi ñu ngi sant suñu ñaari wayjur bu baax di wax tamit inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa lu nu bett lu ma bett la laay wax man lu ma bett trop trop wallahi lu ma bett trop la yaakaaruma ko woon daf maa bett trop trop ndax man bu ma amee fitu làmb rek ramata man maay mbër mu ndaw bi nekk boo xamante moo nekk dóor dóoraat te ram xàmmeewul mbër mu ndaw ak mbër mu mag mooy man bu ma jógee rek ram daa defe ne moo war a bëre man damay ñëw ci làmb ba làmb des ñaari combat ma war a bëre jékki-jékki geesu seen ko mu dugg si kon tey man bu ma toogee ba war a bëre ni gisuma ram man damaa xamul fan laa jëm man loolu laay laaj fan laa jëm metti na torop torop torop torop ndax mooy li may wax moom laay waxaat rek fu ñu seen ramdaan seen fa uus tey jii nii ñu jépp jépp ñu ne ramdaan ngir na àdduna tey jii nii mu nekk loo xamante ne doy na waa torop ak lu mbër ñàkk nañ waa parcelle ñàkk nañ ñëpp ñàkk nañ tey jii. waaw ma xaw a yéem nag parce que man law moom Moussa Balla Gaye bu ma toogee gisuma Moussa Balla Gaye mu jël suma live yaakaar ne ram moo fi des ma dem entraînement ñibbisi toog suñu am ku woo suma grand frère ne ko ndax yëg nga li ma yëg sama grand frère bi ne ko lu xew mu ne ko ram la ñu wax dem na ma ne ko loolu amul suma grand frère wax ma ne ko amul ma ku la wax loolu wax loolu amul suma grand bi ne ma kaa ñu vérifier dugg ci téléphone parce que man li may nekk ci net bu bëriwul dugg ci téléphone xool ne ma eh për li wax am na de mu ne bërit ñëw fii gis loolu kon ñun dañuy laajte ñun ñi fi des ñun fan lañ jëm ak ñun lan moo ñu dese ci àddina loolu la ñuy laajte. boobu noonu lay ñëw ndax euh, bi muy nekk États-Unis yan kàddu ngeen mës a mujjee waxante ñaar. maanaam ay vocal am muy fii. wallaay. ram sax guddi dama ko doon wax ne ko yow nii ngay def ñun bu ñu waree entraîné ji yow boo amee sa temps rek dag ñuy bloqué mu ne ko sonal nga nit ñi waay bàyyil nit ñi ñu nekk ci seen jàmm nga nekk ci li nga war a nekk mu ne ma mais booy dama leen nam ma ne ko ah mais dara mu a ma ne ko yow yaa ñu nekkal foofu ñoo la nekkal fii man ma toog quatre jour déggu ma ram mu jaaxal ma mu jaaxal ma. tawatoon wala lan woowee ram du ma jot ma ñëw ci suñu suñu mag bi ma ne ko mais sa waay woo naa ko jotuma mu ne ma xam naa la am na fu mu sànni téléphone nekk ci ay business am ma wax kon baax kon démb ba ma ba ma jógee entraînement toog tuuti ñu ne ma ram dafa dem man loolu mënul nekk wallaahi mënul nekk. dem daa mënul nekk sax wóor na yàlla ndax damaa xam ram si mu tolloon ci ñun. ram dañuy déggante mu ne États-Unis papaay kenn moomu ko yaay kenn moomu ko mm-hmm. benn kàddu la dëggam leen seen bopp fonk leen seen i wayjur ram benn kàddu boobu mosu koo jëlee suñu nopp ñun dëggam seen bopp fonk leen seen i waajur wallaahi mosul loolu suñu bopp yu am solo teg ci naan fonkante leen même bu la nit bañee sax bu ko nga xam ko bu ko wan yow diw daf bañ mm-hmm. nekkal ak moom ci Ramdaan mosoo koo seen mu toog fii nga gis ko mu def këj mënul mere doomu aadama ram bu xulooweeg yow tey bu xëyee suba moo lay romb dóor la mbalag la pour nga wàccaat man ba ma juddoo ba tool ni ma toll mosuma dégg fii ñu ne Ramdaan moo fi xuloo kenn wala moo fi joteeg nit barki alxuraanul karim mësta am ci àddina kon ku mel noonu ñun ñun buñ demee ba gisatuñ ko après ñun ñun dañuy laajte ñun ñii ñun ñi nga xam ne ñooy xale nekk fii ñun fan lañu jëm kon koo xamante ñu daa jàppoon moom ak ñun ñoo bokk ndey ak baay xàmmeewul Ouz Garga xàmmeewul Tapha Mbeur xàmmeewul keneen ak keneen fii ak amu ci xaaj ak seen appel vidéo yi chaque trente minutes nii. di leen nemmeeku. wallaahi lazim loo xamante dafa jafe léegi ci nit. ram di ko def. mooy yëg-yëg bi. ñoo xam am na ñoo xamante tey maanaam du ma ne mënuñu ko mais temps mayu leen ko mais ram temps bu gàtt bu ko amee sax day wane ne man diw gëj naa ko dégg bu la wooyee jot la day xool ku la gën a jege. mu ne an ana diw kooku ne ko diw mi ngi foon lii fexeel waay ma jot ko boo ñëwee dafa mbër ne la ram léegi la ba coupé man mi ngi lay laajte yow boo duggee ci ci boo taalee boo taalee sa connexion automatiquement appel ram ngay njëkk a gis. amul dara lu muy nëbbanteeg ñun amul combat boo ko ci wax même bu amoon juróom day jël ñetti dërëm jox la ko dese ñaar dërëm day toog fii billaahi ñu ne ko booy dënnal demal jënd nangam mu génne xaalis bi ñu ne ko ñun ñooy jëndi pourtant xaalisam la demee moom mooy jug dem jënd ko indi ñu toog lekk ba suur mbala gante mais nag dam yàlla li la nam nañ ko sante yàlla te xam ni ku li nax sin saa yi xat sin mawt mm. bakkan bu mos dund di nga mos dee ndax sunu borom moom kenn du xëccoog moom lii nag lañ ci am mooy mu dem bu demee dina nu metti torop mais sunu borom moo ko indi woon moo ko jëlaat lu ci waay mën kenn mënul xëccoog moom mais dañuy ñaan yàlla rek yàlla na dee di noflaayam di ñaan yàlla fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla na ko Seydil Hadji Malick ak Seydina Mohamed teeru ca bàmmeelam ndax man xam naa Ramadaan billaahi wallaahi Ramadaan man damay dugg néegam jël alalam dem sama te dara duma ci fekk déggoo li ma lax ram damay war a dem esat du daje fi ma simee ko ci gàllem jël ay yéreem jël ay dàllam jël léppam départ maak moom ñu demandoo esat complicité boobu noonu yéen ñaar ngeen amoon ko lan la woon depuis bi ngeen xale la wala làmb moo leen boole. ram avant ma bëre arène ñu ngi ànd di entraîner boobu mi ngi écrit moor Fadam boobu am na benn montagne bu nekkoon géej boobu daañu la ko chaque ngoon man la woon moom Moussa Balla Gaye ñoo fa daan nekk di entraîner bu ñu entraîner mu daan sol benn débardeur bu gris ak benn joogin bu bula bu nu paree mu jaar nii man bu ma ñëwee ba fii def nii bu ngoonee ñu déggante waat chaque jour chaque jour waaye ñu jékki-jékki mu jugee écurie Mor Fadam ñëw sunu écurie chaque jour noonu man maa laan tayal a dem mais Ram du tayal man bu ma tayalee moom mooy woote bu ma ko bañee jël mu insisté bu insisté ma jékki-jékki ne ko maa ngi ñëw bu ma yéexee tuuti si ma buntu gàlle la koy fekk. du ma ko fàttaliku ba muy pare ba ñuy pare kalaaf bi am na jour boo xamante jóg nañ fajar dem entraînement dajeeg ay papa yi daw ndax boobu ñu ngi dem entraînement ñu ngi téye ay weñ pour war a yéeg ak moom ci montagne yi boobu mi ngi pare infrant rouge ba mu ci génnee lañ ko dugal ci kalaaf bi ñuy def chaque ngoon ñu dem din ku bëggoon li muy def la du tricher nag ku gëmoon ne moom dafa war a téye làmb la du ci tricher ku ku bëggoon way juram bu jigéen la it wallahi lazim ku bëggoon way juram bu jigéen la te triché wu ci benn yoon dem amu ci benn pas en man demoon nañ ba yaakaar na fii laa dëkk ndax moom mosaan dem entraînement bu ma sangoo pare fii laay ñëw daaj ci néegam man moom Moussa Balla Gaye bu ñu añee ba pare ñu dem si meeku ji ñëwaat fii encore jël si ko doog a dem entraînement kon loolu nit ku la yëg rek moo ko def nit koo xamante xeebu la mooy doxee noonu nit koo xamante xeebu la rek moo koy def teram xeebul kenn wallahi lazim am na loolu bu ma ci waxee nii damay damay juum mais ndiis suñu benn frère la moom tamit fii la nekkoon dafa dem dafa dafa voyagé sax ak Ramdaan la kooku bu toogoon fii di wax ram daan man damay ànd ak daan lu ndaw laa di topp ay garga mbapat di leen seetaan lu tuutee tuuti di topp ram daan fu mu dugg ma dugg fa bu demee entraînement dama daan xool ñi nga xam ne ñoo ma mën ci entraînement ma topp leen mais damaa demoon ba xam ne ram moo ma mën ci entraînement ma topp ko. xam boo ko toppee mën nga am yaakaar ni làmb ji di nga ko téye. ram mosuma ànd ak moom ci làmb si meeku ñu ne ma àccam ah, mostam lu metti nga daan daj boo leen daan entraîné. te li moo lu metti moo lay jox nga reer. incha allah moom day fàtte boppam. Mhm. ram. ram du nekk na ci kalaaf bi daan fàcc ñun dañ daan dem ba jàpp ne ram xanaa nekkatul ci kalaaf bi ndax ñooy ànd entraînement ramay jënd yàpp barki Seydil Hadji Malick géej fii lañu toog bu ñu entraîné pare fa lañ début bi du fekk ñu toog lekk ba suur toog toog ci ci géej gi di waxtaan ba minuit wi heure ñu pare gàddu suñu bagage dox ndànk ñëw duggaat ci kër gi ram lu mu bu bu demoon ba amul dërëm balaa moo tëdd dana fëgg yaayam xool ndax yaay jëng ci jàmm doo ko tëdd bu yeewu fajar balaa génn dina dugg néegu yaayam xool ndax yaay jëng ci jàmm mu génn dem entraînement lu jafee ngi noonu ci doomu aadama am na ñoo xamante bu ñu xëyee def nañ la def génn bu seen yaay fanaanoo xamuñu ko xam da daan dugg ci kër gi bu fekkee maire yeeg yëpp toog ci saal bi day mbalagante maire yi di ree mu reetaan boo nee boo ne woon tëll mu toog fii li mu lay njëkk wax dafa yaa nga de commencé reetaan. la déggee maanaam mooy Ramadaan jàmm rek la doon dund. déggoo li ma boo duggoon ci kër yi fii wóor na alxuraan nga laajte ndax ram mës na fee joteeg nit. billaahi doo ko fi gis doo ko fi gis te li muy def du ci làmb kase xeebul làmb de làmb maanaam métier la woon ñun ñu ci nekkoon xamoon na ne ñun dañ ko bëgg mais ram fii xale bu ndaw bu xewle. ay anniversaire rek yooyu dama fay jiitu da ko daan jaral mu dagg liggéeyam almadi nekk ci nekk ci tout tànk yi mu ñaan permission lu jafe laa lay wax nii ci làmb loo xamante nit koo xamante nit ku oyof rek moo ko mën ram bu diisaloon boppam wala mu am fu mu teg boppam wala buñ ko rombee di ko nuyu ñu faale billaay bu xewlee doo gis kenn esaat jàmm ram bu nee tëll esaat esaat bi fees dell ñu ngi koy jaale nag parcelles yëpp ba vingt six di ko jaale waa doole mais surtout waa éco ram amul fu muy dem te waa ECHO waa éco ñoo doon ngemb moom ndax moom doon tiitaroo doomu ECHO blouson yi muy sol yëpp waa doomu éco ñoo koy jox ñu koy jaale tamit sunu mag Youssou ñun ñàkkuñu de mais Youssou moo ñàkk quoi wallaay Youssou moo ñàkk ñun xam nañ ne dina wàññi lu garaaw ci ñun ndax man maa ngi xalaat man ma dugg ci làmb ba war a bëre gees boo gestoo doo gis laaj la jëm gisuma Ramdaan man loolu xaw ma fan laa lan la la war a def man maa xamul loolu fan laa jëm après billaahi fu ñu la musi gis Ramdaan buñ gestoo gis ko ci wet bi nga war a bëree dem bëre ji doo ñu gis Ramdaan sa wet loolu lan la la nar a def loolu man moo ma nar a jaaxal loolu moo mën a jaaxal mais nag yàllaa ñuy wan boppam rek yàlla moo ñuy wan boppam mooy ñun dañoo war a bëggante. comme ni ko Tafa waxee dañu war a bëggante. wallaahi xam nga lu tax kenn yéenewul kenn dee. mais boo joteeg nit bu xëyee suba génn àdduna rek nga jombi nit dina xuloog nit dina xeex ak moom ñu dóorantee kurpeñ lu ne. mais doo dégg fukk mu toog na diw yàlla na ko yàlla yóbbu kenn yéenewul kenn dee mais nag boo joteeg nit lu metti metti métti bu boo xëyee suba ñu ne la diw génn na àdduna wallaahi nga toog ci suuf fii àdduna bi ko def kër yaa nax sa bopp kër kër gi mooy fële rek ñu jëm. seen jëf ju baax rek la fay. dañoo jamono ji koo fi ne àdduna du dara mu si koo ci doo dara mu siisu. Mhm. joteeg yow te dëgg la ñun suuf ak ban rek lañ te fa lañ jëmaat kon ñun li ñu war mooy ñu wàcce suñu bopp ba tolloog suuf sii jox ñëpp kër cër suñu way ju rek suñuy morom ak suñuy rax ak suñuy mag suñuy papa foofu lañ toll te loolu moo ñu war wallaahi la sim loolu moo ñu war ñun bu ñu bokkee nday bokk baay ah yàlla de moo mooy jëlee mais xam naa ne ku demit dinañ am yaakaar ci moom ndax Moussa Balla Gaye boo xoolee nii la rek ñu ñu xëy suba ñu ne ñu dem na Ramdaan tamit nii la rek ñu xëy suba ñu ne ñu Ramdaan dem na. Moussa tamit. Moussa ñun ñëpp la bett kooku du woon mbër Moussa Balla Gaye ma wax la tey du woon mbër wàlliwu la Moussa Balla Gaye feebar na ba sonn boo ñëwee këram mu jug toog. waxtaan ak yow ne bu lëndee école bu ma ñëwee du ma may dara boo génnee Moussa Balla Gaye tëddaat Moussa Gaye Moussa Balla Gaye feebar na ak ngoram toog seen kër ak ngorom kenn xamalu ko mu dee ak ngorom. lu jafee ci jamono jii nii ngay wax mooy ngor. musa Dioum feebar na ak ngorom tëdd ak ngoram dee ak ngoram te kenn xamu ko te loo xamul Moussa Dioum man. dañoo toog ma yónnee ko vocal am benn benn genre euh, may may ma tëgg sama gémmiñ naan ko jàppal temps bi mu naan ma sa temps yi na nga ko téye di ree ndeke man kooku may waxal mu naan ma sa temps yi mi ngi ko téye mi ngi hôpital tëdd te ci lalu hôpital la ma tonto ma xëy suba ñu ne ma Moussa Dioum génn àdduna te ma dégganteeg moom démb te ñun ñi mu doon nekkandool saal kenn xamul ne Moussa Dioum dafa tëdd feebar ndax Moussa Dioum bu ñëwee saal balaa moo njëkk a def day taxaw fecc ba nit ñëpp ree mu simmee ko sol sol yéreem commencé entraîné bu ma ko nañ tëran xam nga lu may njëkk a wax damay ba pare Moussa Balla Gaye këm bëgg ram daan fonk ram daan fu ram dem ma nga fa lu ram di def mi ci wetam moom tamit xëy suba ñu ne ñu nii ñu xëy suba tamit toog dundee yaakaar sunu borom ñëw def li dañuy sant yàlla nga xam ne ram dañ koy wax ne ko yàlla bu ko cet jiitu ci bàmmeelam loolu rek la ñaan yàlla bu ko cet jiitu ci bàmmeelam ñun de am nañ ci yaakaar ak xan wallahi lazim ne xam ne ram fu mu jëm billahi wallahi taalaay xel mu sell rek lañ ci am te xam ne sunu borom dina ko teeru te Seydina Muhammad dana ko teral ñun xel mu sell lañ ci am. ndax deful lu ñaaw waxul lu ñaaw deful lu bon yéenewul kenn kenn lu bon bu la séenee day jàpp ne yaa ko gënal boppam loolu dafa amati ci jamono ji jamono ji fii ku la romb tey day jàpp ne moo la gën yow te kenn gënul kenn yàlla rek ay mais ñun tey bu ñu lii bu ñu lii dalee mu bett ñu nag bu la waxee ne la amuñu lu ñu metti rek wallahi waxuñu la dëgg am nañ lu metti de mais borom bët bu rëy bii kenn mënta xëccoog moom. ndax la mu lu mu def rek daa fekk ne loolu moo gën kon dañuy santaat yàlla bu baax di ñaanal yaayam nag di ñaanal yaayam ndax ku ku taxaw ne sa jur bàyyil ma liggéey indi la sunu borom ñëw jëlee ko ci ndaw du jabar du doom ñun ana lan la ñuy xoolee ram lu dul suñu grand frère bi Youssou moom rek lañ koy xoolee pour ñu dugg ci kër gi xool meer bi daf ñuy daf ñuy xaw a diis. ndax bu buñ duggee yan bët lañ koy xoolee man maire bi daa demoon ba mu gi li ma gars yi doon balagee bu ma ñëwee fàtte ne sax sama tur bu ma dugg see mu ne mbër mu xees ma koy ree kon man démb ba ma duggee ci buntu kër gi fekk maire bi mu nekk beneen melokaan man su na àdduna dafa tukki dama ne ñun lu ñu wutee ci fii fi wut lan ñun luñ fi defati safewul ki nga xam ne mun ñun moonu moonu moonu gën fuuf teg nu fu wóor moom la suñu borom jël kon ñun lan lañ fi wef lan ana ñun lan la ñuy defar ci àddina barke alxuraan ñun defatuñ fi dara dara dara wóor rasulaay amatuñ dara luñ fi def maa ngi maa ngi jégalu xam naa ni am nga lu la metti torop torop torop mais dama lay ñaan yàlla nga am xolu muñ parce que tey jii nii am na loo xamante ne dund nga ko ak daan moo tax tey jii nii sa xol fees torop maa lay jaajëfal bu baax a baax baax di la amal jàmm yàlla na la yàlla may xolu muñ parce que lii nii rek àddunaa ngi nii demal maa ngi ñëw la te am na loo xamante ne yaa ko wax léegi mooy suñu borom kenn du xëccoog moom moo tax tey jii nii yàlla na la yàlla may xolu muñ ñaanal ko instant bi nii boo defee nii rek dina xaw a doy waar parce que xool ci ci mbër Mbeur amaana tey jii nii du du demee noonu uus ñu ngi lay massawuwaat di la massawuwaat di la massawuwaat di la metti na torop metti na torop mais yaa ko wax léegi sa biir kàddu borom bët bu réy bii nii bu soxlawee ñépp dañuy ñàkk ñëppay ñàkk kon ñu ngi lay masawu bu baax a baax a baax baax a baax xam ni yàlla daal bu ne waaw rekk kenn du ci mën dara moo tax maa ngi lay ñaanal nga am xolu muñ parce que fu ñu la daan seen rek dañ fay seen kii nii di Ramdan yaa ngi koy wax sa biir wax man su ma demee làmb tournée gisuma kooku noonu nan laay def waaye yàlla am na beneen jën bu dul keccax yàlla na la yàlla may xolu muñ taxawu la aar la yiir la loolu laa lay ñaanal kàdd gu mujj gi lan lay doon waa ñun de fu mu doon ni wax wallaay dinañ xaw a diis torop li ñuy wax mooy yàlla na yàlla def jàmm rek ñu ñaan daal ram yàlla na ko yàlla xaaree ci àjjana yi gën a kawe ñaan suñu wayjur bu jigéen bi fi nekk yàlla na yàlla wa bàyyi ko fi ba ci kanam kanam ba mu gis suñu yéene ci ñun wallaay duñ ko bàyyi ginnaaw ba keroog ñu dee ndax suñu yaay la te xam nañ fi mu ñu toll jërëjëf